Thierno Mouhamadou Samba Sow la tudd téere bi euh, mu ngi situé wu ci Sud Stade fu ñu wax Mbour 3 titre foncier global bi mu ngi tudd 42 20 mais titre foncier individuel bi nekk ci suma tur léegi 80 48 la kooku moo nekk ci turu Mouhamadou Samba Sow foo mën a nekk ci Sénégal di nga ko gis incha allah taala donc euh, téere boobu man citoyen la sénégalais la digne sénégalais kenn ganuma nekk sénégalais fii ci cees laa dëkk ci benn quartier bu ñuy wax quartier Abdoulaye Yakhine Diop maa ngi tudd ci Mouhamadou Samba Sow ñu du ma wax addina bi yëpp xam na ma mais ñu bari xam nañ ma donc maa ngi koy sant yàlla bu baax. téere bi euh, fu ñuy jaar euh, boo soxlaa téere wala boo waree régulariser maanaam benn téere boo moom yoon boobu rek laa jaar yoon bi benn la amul ñaari yoon amul ñetti yoon amul ñeenti yoon. donc yoon bi benn la su fekkee maanaam euh, euh, terrain boo xam ne bii ci ci ci wàllu procédure lañ koy jaaree ci procédure bi nga xam ne maanaam àddina bi yëpp bi mu xamee rek procédure bi nga xam ne moom lañ ko xamee ci procédure boobu laa jaar donc terrain boo koy régulariser yaakaar naa war nga am lu ñuy wax maanaam extrait de plan cadastral soo fekkee maanaam lu ëpp 1000 mètres carrés gouverneur euh, amul droit signé ko donc dafa war a dem dakaar Euh, ñu dugal ko lu ñuy wax maanaam CCOD boo amee sens bu jàllee CCOD léegi am nga droit bàyyi léegi boo amee baay bi après da bu ñu ko deferee bu ñu ko préparé à partir de régional bi nga ko defee léegi dafay defaat encore retour Dakar ci ministre bi moo koy approuvé moom rek moo am droit maanaam approuvé ko donc gannaaw loolu am nga baay léegi foofu nga am droit encore euh, boo buggee continuer nga am lu ñu wax maanaam euh, titre foncier. li ci des ay autorisation de construire boo bëggee def maanaam say exploitation ak projet yi nga xam ne da nga ko bëggoon def kon loolu yëpp alhamdulilah rabbil alamina fi ñu toog ni loolu yëpp am nañ ko te amul eh, benn jàdd jàdd boo xam ne bi man loolu xaw ma ko sax xaw ma maanaam ndax terrain boo koy régulariser dafa am fooy jàdd wala dafa am ay ruq yooyu laxutu wala dafa am ñoo ñoo xam ne maanaam di nga leen war a gis pour ñu jàppale la ci. lan boobu ak dimension bi. terrain boobu dimension bi avant tout 1567 la. 1567 mètres carrés incha allah taala institut islamique la fas yéene def foofu am na yeneen programme yi ñu am foofu mais loolu mooy titre bi yëpp mu ngi ci ci autorisation de construire bi danaa leen ko jox après ngeen zoom ko ngeen filmer ko ba mu leer nañ képp ku gis ku ko gis dana gis programme bi nga xam ne moom la ñu signé foofu. kañ am xalaat boobu pour taxawal institut islamique boobu bi kañ leen ko jox officiellement. officiellement mu ngi ci kayit yi date bi mu ngi ci kayit bi damay bañ a jum ci ci date bi mu ngi ci kayit bi léegi euh, pour loolu yàgg na ci man en tant que jullit ci l'islam bi nga yëngu boo alhamdulilah man alquran laa jàng diine laa fekk ci suma ndey ci suma baay donc euh, te euh, diine boobu fonk naa ko te jàpp naa ne diine dégg la donc diine bi dafa lu mu laaj donc man guide la Eh, yaakaar naa wareef la ci man warugal la ci man ma am xalaat boobu pour maanaam ma def suma participation bu ndaw ci l'islam bi pour mu gën a développé mu gën a doole mu gën am ay motuwaay pour moo gan koo motiver. problème Sénégal Sénégal dafa am problème loolu damay interpeller président Macky Sall alhamdulilah ci yaram ak tegginam ak mbaaxam ak dalam ak teeyam na bàyyi loolu xel bu baax yaradiku bi ak réewande bi ak xamadi bi dafa bari Sénégal léegi. mun na ci dara mun na ci dara gannaaw yàlla kon bu ko yàlla jàppale mun na ci dara parce que nit eh, balaa nga yar sa doom na fekk yow da ngaa yaru pare mais bu fekkee yow boo nekkee sa biir kër nga toog ak say njaboot de eh, yow li ngay def yëpp ay fen ak ay wor ak ay fecce colère ak ay njuuñ njaaj ay tooñ ak ay provoqué ngay wane man damaa pànk capable naa def luy bal naa def lii say doom yi boo boo xamee boo xamee boo xamul jàppal ne loolu école la yaa ngi jàngal say doom lu bon kon sénégal yi léegi seen jikku yi dafa yàkku ci benn façon boo xam ne bii man loolu def ma yéem sax. foofu jardin du jardin foofu kenn mënu la indil kenn mënul indil indil firnde foofu jardin public la indil foofu espace vert la foofu réservé état la foofu réservé état la woon kenn mënul indi lu koy firndeel. amul benn service compétent bu mun a indi lu koy justifier lii maanaam espace de vert la espace vert la woon wala jardin public la woon foofu réserve état la woon jaar naa fi ma war a jaar alhamdulilahi rabbil alamina euh, Bamaki sa fekkee nag léegi Sénégal c'est-à-dire léegi eh, état Sénégal léegi ñoom léegi seen signature yi ak seen casier yi léegi amatul valable ñu xam ko su fekkee léegi état Sénégal moo am droit attribuer maanaam ay ay terrain mu am droit moom moo am droit c'est-à-dire régulariser ay terrain léegi loolu amatul valeur seen signature yi seen casier yi loolu war ko xoolaat seen suñu bopp. Euh, yow lan ngay tontu ñuy naan yow mos nga dem foofu ñu leen xaritu Macky Sall nga sëriñu Macky Sall ñu bëgg ko ñu bañ koo bëgg loolu yaa ko moom ndax loolu dëgg la. loolu man dépassé naa ko képp ku ma xam ku xam Mouhamed Sow man def na 63 pays ci àddina bi man. cest a dire ku ma xamul xam naa suma bopp te ku ma xamul xam naa li ma yàlla defal alhamdulilah maa ngi koy sant yàlla du tekku du bakku ñoom dégg naa ñuy tekku di bakku di def lu nekk ci àddina wax nañu loo xam ne sax soxluwul ma ci jaaraat mais yàgg bayul bawul dara léegi su ma diggante ak président man amul fenn fu ñu ko mën a indee ci vidéo boo xam ne bii dañ ko filmer bu dee sax ci téléphone man fu ma toogee ma wax man président suma xarit la pourtant man bu ma neexee ma wax président suma xarit la bu ma neexee ma wax ne ma suma mbokk la bu ma neexee am naa droit bëgg ko am naa droit sopp ko am naa droit jàppale ko am naa droit ñaanal ko am naa droit taxaw te moom laay jàppale moom laa moom laa bëgg suma biir xol. te bu la joxoon lu dul yoon comme ni nga waxee comme alxuraan bi nga jàng. Aliou Sow bi bu ngeen demee ci télévision laay wax. billahi allazi la huwa keroog bi ma ñëwee ci moom mu war a arrêté def arrêté autorisation de construire bi ma ni ko Aliou Sow. dama bugg nga xool sa diggante ak yàlla parce que fii barabu jaamu yàlla la soo fekkee dese naa lenn lu leer lu leerul lu ñu war a régler maanaam ci papier bi boo ma signalee autorisation de construire baaluma la àddina ak àllaaxira ci télévision laa jàkkaarloo bépp service compétent bu ma musoon jaar bu ma ñëwee ci yow lay wax ne balaa nga may signal xoolaal bu baax ndax man li fi ma jaar trace bi ma jaar amul li ma dese woon régulariser bul ma jàppale si loo xam ne li maanaam lu baaxul téere bi man maa ko moom man jox ma ko sama bopp yàllaa ma ko jox ñi ma ko war a jox ñoo ma ko jox damaa jaar fi ma jaar ba ma am ko loolu yëpp waruñ ko lijjanti seen problème bu doon seen moomeel papa la seen moomeel yaay la wala seen moomeel maam la am nañu droit lijjanti ko mais loo xam ne lii moomuloo ko loo koy lijjante li ñu signé ci autorisation de construire bi institut islamique dafa am lu koy fournir am na foofu benn bâtiment immeuble R plus 1 am na benn côté maanaam commercial la am na benn côté boo xam ne bi jàkka la am na côté boo xam ne bi ay classe institut islamique la xar danaa ci ñëw comprendre nga ma la wax donc lii lu am la fii amul tappale amul nju njaaj amul nobbatu wala amul lii lu leer la mais problème bi man li may posé question ñoom lu ñu lijjanti ci loolu man bu man suma ma teeree man maako moom lu ma neex lay exploité foofu bi may xalaat loolu du ñoom ñoom moo ko xalaatuloo waaw ah man jàng naa loolu rasul salaam rasul waaw rasulullahi salaa salaam dafa wax ne al al jaar qabla daar dëkkandoo balaa nga dëkk loolu yonent bi moo ko wax man jàng loolu mais bu fekkee sa fekkee ñoom eh, buñ ma teertoo ci loo xam ne lu baaxul ah yaakaar naa loolu man tamit ba léegi waxuma leen dara mais yaakaar naa ñoom ñoo wax parce que yéen a demoon ci ñoom yéen yéen ay journaliste ngeen est-ce que mus ngeen dégg suma kàddu c'est la première fois tey. waaw mais tey jii leer na ci seen kanam léegi ñu dem ci ci papier yi waaw lii extrait plan cadastral la mu ngi nii lii rapport bi demoon à partir de fii bu demoon Dakar lii mooy rapport CCOD bi jàll ah ngeen mu ngi nii mooy rapport CCOD bi jàll mu ngi nii ah lii mooy baay bi lii mooy titre foncier bi mu ngi nii lii yéen ñëpp lii du signature Aliou Sow du casier Aliou Sow du arrêté mairie autorisation de construire du moo nekk nii ñaari papier lay doon mu ngi nii beneen bi mu ngi nii ah bu arrêté sous-préfet bi mu ngi nii ñaari papier lay doon gis nga beneen bi mu ngi nii ah xoolal danaa leen ba ma wan leen maanaam bordereau bi mu jógee woon ci Aliou Sow bi mooy extrait plan cadastral bi bordereau bi jóge woon ci Aliou Sow ñëw ci mais préfet mu ngi nii sous préfet lii courrier bu jógee ci Aliou Sow la ñëw ci sous préfet la leer na Aliou moo ko si wala signé wu ko ñu ngi wax ne maanaam awma autorisation de eaux et forêt lii du eaux et forêt dañuy wax ne damaa dagg garab yi maanaam di di def maa tey di dagg garab lii du autorisation eaux et forêt am na walla amul léegi sëñ Sow léegi li nga fi a leer hmm. waxtaan bi aussi jaroon na ko pour leeral hmm. mais dëkkandoo jàmm si gën wax nga ko léegi al jaaru xabla daaru loolu nga wax léegi. Mm. Mm. mais léegi yoon may na la lépp lu fi nga war a jaar jaar nga fa. Mm. yaa nga war a tàmbali sa liggéey am na ñeneen yi jóg coow léegi yooyu noonu ba ñenn ñi sax yow da nga wut sécurité pour liggéey boobu léegi lan ngay lancer appel kilifa yi nga xam ne aussi ñoom lañu dénk dëkk bi parce que citoyen la. c'est-à-dire kilifa yi nekk ci dëkk bi wax dëgg yàlla ñu ngi def seen liggéey amul lenn lu ma leen di reproche autorité bi ganakaay ba ci suuf. ñu ngi def seen non c'est-à-dire soxla naa ko du mais pour du pour man personnellement bu ma leen di interpeller du pour man personnellement du pour terrain bi rek parce que du terrain bi mooy suma dund du moom mooy suma àllaaxira du moom mooy suma àddina demee leen di interpeller généralement dégg nga lépp lu mel nii dañ ko war a fànk ci Sénégal parce que léegi doomu aadama yi dañu réew di door ay policier di door ay gendarme dégg di dóor ay eaux et di def lu nekk di daaneel seen beñ loolu def dafa war ci Sénégal kon ko bu ma leen di interpeller maanaam service compétent yi ak yi nekk bi du à de tribunal ba gendarmerie ba police du pour man personnellement dama leen di interpeller pour généralement pour Sénégal yëpp entièrement képp koo xam ne kii dafa taxaw di tooñ di fen di wor di fecc colère di sàcc di def naka sudul noonu nañ ci jël seen motuwaay texte ñu xool seen diggante ak yàlla ñu xool texte bi nga xam ne moo leen fal lépp loo def fii ci àddina di ko defaat ci kanam yàlla subhanahu wa bu la passé bi nga njëkkee commencé liggéey bi am na nit ñi euh, ndax ragaloo loolu aussi si si si liggéey yi gis nga gis nga ñun ay doomi yoon lañu. sa fekkee woon yoon moo ñu tënk man bu ma toogee foofu ci teere bi amul ko ci ñoom ku am fit ki dama fekk foofu di ma yàkkal dara dafa fekk nag boo fekkee maanaam doomi yoon nga nit bu la defee naka sudul noonu waroo nekk foofu di fayant ak moom di nga war a jaar ci yoon comprendre nga mais. Eh, so fekkee woon diggante góor ak góor rek la man ñii nekk foofu fit bi nekk ci man li ma ñeme def ñoom ñemewuñ ko def. liggéey ñaata diir la war a liggéey ban loolu mu ngi ci loolu ci loxo yàlla la nekk. Eh, waaw mais c'est-à-dire loolu ci loxo yàlla la nekk. dañuy ñaan yàlla incha allah taala ñu dugg ci bisimilah rahmaani rahiim ñu génne ci alhamdulilah rabbil alamin ñu génne ci tamit ak succès ak ndam li ñu sumb tamit eh, ñu fekkee barke bi ak ngeneel bi ak xéewal bi ñun ñëpp ñu fekkee ko. bañu fas naa yéene incha allahu taala ci kattanu yàlla liggéey foofu loo xam ne li maanaam dana nekk modèle ci Sénégal dana nekk loo xam ne li maanaam dafay bokk na ci dana loo xam ne li maanaam dana change visage Sénégal surtout ma encore fi Thiès dégg nga mu nekk lu luxe mu nekk loo xam ne maanaam lu jaar yoon mu nekk tamit lu lew mu nekk loo xam ne li maanaam kenn ku képp ku bugg lu baax rek dana ci roy bu ci royee dana xam ne maanaam def lu baax rek moo am moo am solo waaw léegi lañu tàmbali xam nga liggéey moom ñun bugg eh, ñun ay jullit lañu amuñu habitude di jiitalante ak yàlla kaddu bi gën a mooy sumb nañ ci bisimilah rahmaani rahim dañuy ñaan yàlla borom kattan bi ñu àggal ci alhamdulilah rabbil alamin su ma dëkkandoo yi man lépp c'est-à-dire eh, ñoom dañu juum ku dul juum nag amul ci àddina dégg kudul juum amul ci àddina te yàlla mu ni e, wal asri inna al la fi xusrin illa alladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqi wa tawasaw bis sabri ñeent yi rek la yàlla gërëm ñi ci yëpp dañu perte mooy mu ni giiñ naa ci takkusaan am na ñu wax ne maanaam takkusaan mooy jamono bi yonent bi dundoon am na ñuy wax ne maanaam takkusaan mooy takkusaan bi ñuy julli takkusaan bi ngeen xam yàlla mu ni giiñ naa ci takkusaan boobu bépp doomu aadama def perte ba mu des koo xam ne kii lilladina amanu ñi nga gëm ñi nga xam ne dañu gëm yàlla ak yonant bi gëm lu baax di moytu lu bon lii wa amilu saalihaati di jëf maanaam jëf yu baax watawasaw bil xaqi c'est-à-dire ñu dénkante seen biir maanaam dégg dégg mooy yàlla ak lu jëm ci mbir yàlla watawasaw bi sabri ñu dénkante seen biir muñ ñii rek la yàlla gërëm kudul juum amul ci àddina mais man xam naa dañu juum première njuumte bi ñu njëkk a juum mooy fi ñu jàppee ni maanaam foofu espace vert la te espace vert mun na nekk espace vert ba pare état am na droit mu infecté ko mu mu mu defaat ko beneen destination mun na nekk encore jardin public ba pare état am na pouvoir am na doole mu infecté mu nekkaat beneen destination sakantement loo xam ne bii réserve la woon nekkul nekkul espace nekkul maanaam euh, jardin public. boo jàppee ñoom dañoo juum jàppaloo leen dara ñoom. man man mënuma jàppal kenn dara parce que du ma guddalal suma bopp loo xam ne li nekkul ci suma loxo. yàlla dafa wax ne maanaam foo mën a toll maanaam jullil nga jaamul yàlla nga rafetal nga jubal foo mën a nekk ci àddina mais séentul dee te bul toppatoo ni ngay dee ak fan ngay dee ak nak ngay dee loolu mbiru yàlla la kon e, man lépp lu ma doomu aadama wax rek lépp lu ñu ma waxal man gis naa ci ay kaddu yoo xam ne xam naa yoon bu ma leen porté plainte tey am na ci yoo xam ne dañ ko utiliser du ñu fanaan seen kër comprendre nga mais loolu c'est pas important parce que li ëpp important ci àddina nit lépp lu mu la jox ci àddina cër bi gën kawe ci àddina mu ci bokk na ci cëru rasul sallallahu alayhi wasallam dégg nga eh, sil man qataaka aati aman xaramaka afu aman zalamak jokkool koo xam ne kii daf dafay dog relation sa diggante ak moom dégg nga eh, séddal koo xam ne kii bu bu amee wërsëg wala bu amee baax yow lay njëkk xañ yow lay njëkk fàtt nga baal koo xam ne kii fu mu toog daf lay toogee lu bon mu lay rubb mu lay saag man lépp lu ñu ma waxal comme lu bon jéggal naa leen yàlla tax alhamdulillahi rabbil alamin eh, caggal ne jettuɗen allah eɗen juula e rasulullahi sallallah eɗen jetta jinnaɓe e meɗen en jetti kadi alhamdulillahi oɗo zamanu baɗɗo sababu moƴƴo en jetti lamɗo leydi ndi hono makisal kam woni lamɗo meɗen lamɗo juulɗo lamɗo nehiɗo lamɗo joom needi lamɗo kadi jogiiɗo bila baɗɗo fayida liggiiɗo sénégal ha woni gonga e gonga makki ɗo mbawɗa wonde fof min jettima homin duwonoma sa tini sa tinani ɗo leliɗa fof ɗo jooɗiɗa fof ɗo dariɗa fof wi amin homin jetta allah homin jettuma homin jetta dennagal wondiɓe ma oɗon mbaɗa ligguey mo ganduɗa mo hono mum ala e leydi min ñaagoto allah tan ko yo nawru ɗum yeesa fenade nattiɗo woodde bandiyagal natti woodde jamfa natti woodde caysagal natti marsude kala joginoɗo ɗeɗo ɗiɗo mecceji nanti nana ƴeewa solution no dañiri meccal gongal ɗum ɗo ko ɗum yettere allah no feewi koye laamu ma daña Euh, ko jiɗmi wiide tan ko yimɓe ɓe yo ndento woto bonnu leydi ndi sabu leydi so natti wadde needi ala ko moƴƴata e leydi ndi surtout ma ne wiye wonde hannde ko mawɓe ɓuri bonde needi e sukaaɓe mawɗo so boni needi cukalel eh, kam ala kaali haala muɗum yo yimɓe neho kula allah dutto e joomumen miijo koko mayata nana gabbe gendarme ɓe ne piya ina gabbe policier ji ne piya afami ina gujja ina pena ina jamfo natti respectude laamu te waɗino jamanu haysa soynima joom pantalon a dogat ala kadi joom tini mais ɗum makke homin ñaague ma min mbaɗma entrepellé tinno ɗum ɗon yo artir yo wattu boom so yo yimɓe fof ɓorno cayaji kala wat ha watta so neɗɗo yi joom pantalon doga ala kadi tini saabu e, leydi ndi hunde heewi cakaneji ina ɓurti no feewi alhamdulillah rabbil alamina e, sababu ndeɗo jonde ko terembo allah rokki en bo ngannduɗaa oɗo ndewɗen koɗo poɗɗen ɗo rewde haa keɓɗen teere o yimɓe ne ndari alaa ko so wonaa caysagal mumen e banndiyagal mumen e mawnude kunude a faami ina kuutoroo ko wonaa goonga ina mbiyana kaɗa men haqqe meɗen hujjaaji meɗen ɗum noon min en jaɓanta ɗum hay e gooto ɗum noon tawde ko onon ngoni laamu mbeɗi yiɗi pulaar ko wiyata ko so dutal ne juure hoore bandane ngola so diwnani koye hoore ma ngal ko laamu onon kaɓete sabu neɗɗo wawa ɗande hoore mum régularisé terrain so rewi ɗo ɗo rewde ha heeɓi ko foti ko heɓde mbeɗa sikki wona sayi sayi bande ɓaleje kurum foti to darade ene wiya wonde ɗum ɗo fotani wonde walla ɗum ɗon foti wonde ah, min somi welama wiya komi seydi makisal kono wona ɗum kebrumi terrain o ala fof kadi bawɗo yaltinde vidéo walla audio ɗo mbimi ɗum dariɗo ne wiya wonde ko seyil président neɗɗo mo ganduɗa kam welete yima kam welete arayma kam welete garata muɗum on wiide ko sehil ma ɗum ɗum ko tardinde hoore ma kono président ne jogui droit droit cehilagal minen homin jogui droit cehilagal min mbeɗa yiɗimo e nder won kam mbeɗa teddinimo kadi ɗo woni fof mbeɗa donombo yo allah junno balɗe makko moƴƴina battande makko o tere ko allah rokki hen ndewɗen koɗo poɗɗen ɗo rewde ha keɓɗen tere o bandiyagal ala hen jamfa ala hen fenade ala hen ayi tere joguiɗo ko wiyete ko extrait de plan cadastral nani onon jirguiti moon waɗana rapport à parti de régional région thies faade dakar pour yiilade hen ko wiyete ko cciod ha yawta nani rapport mu nani ccd o wona min yawtinta bo wona min waɗiɓe condition wona min joƴƴinta ɓe nani rapport muɗum nani nani ko trois papier wonat nani ccod so arti keɓa ko wiyete ko baaye nani bawi o so ari ruttoto dakar ko ministre finance goto wawi ɗum wadde approuvé nani ko recto verso nani après keɓa titre foncier nani koye indam woni directement global o wonno ko 42 20 joni waɗa koye inde ceerno mouhamadou samba sow 80 48 nani ɗum ɗo ko autorisation de construire ɗi kayidaji mbiɗa sikkita mata wona min fewnanta ɗi hooram kadi fewno ɓiɗɗi wona min liggintaɓe wona min yoɓataɓe salaire hein eh? ɗum ko autorisation de construire arrêté mairie ouest ɗum ko arrêté sous nani ɓe mbi wonde ko mbeɗa waɗa e leydi e ko mbelami ɓe mbi wonde mi ala hay autorisation de eaux et nani autorisation de eaux et forêt nani leɗɗe ɗe tawnomi ɗon ɗe donc euh, mbeɗa sikki ɗum ɗo ngal ɗo caysagal ngal ɗo bandiyagal foti iwde leydi haala ka ko mbeɗa waɗa interpellé eɗen jetta yimɓe liggotoɓe administration ɓe liggey maɓɓe ɓena mbaɗa haydara man kane liggey maɓɓe wona gouverneur wona préfet wona polclore wona sous préfet wona gendarmerie wona wona douagne service service aji ɗi fof direction ngaji ɗi fof no ɗi potiri aɓena mbaɗa liggey maɓe te kadi kono foti hanirde ni eɗen jetta allah eɗen jettaɓe haalaluji ɗi e caysayagal ngal ala hen fof ko nawriɓe haydara ɗum noon ko ɗum yettere allah kono noon yoɓe tinno ɓe ɓe ɓe e ɓeydo kadi daraje leydi ndi somi wi yoɓe ɓeydo darde maɓɓe wona pour oɗo terrain ko pour sénégal fof no didori yoɓe tinno ɓe mballa miskineɓe allah ɓe ɓe mballa neɗɗo gonɗo e gonga ɓe darano ɗum wawade liggey mum ɗum tout yimɓe ɓe joni natti teddinde gendarmeɓe natti teddinde policier ji ina jahana piiɗumen ina ƴetta ɗumen teesa neɗɗo wone galle mum ɗanima wawi ɗanade neɗɗo yanani mum heɓtani debbo mum heppani heɓtani ɓiyum jawdi muɗum so allah ne ɗum yawtuki ɓe kono ɓe so natti teddinede walla hoɗo paaɗen e fimay waxe dal moy ceerno hammed sammodi eh, mi magam fi may waxee rek mooy ñun ay sénégalais lañu eh, man li ma gis nañu bàyyi boddi xent ci ci xeet yi séeréer bi ak joolaa bi ak olof bi ak manjaagu bi yépp ñun ñëpp ay doomi Sénégal lañu nañu jàppee suñu bopp ay sénégalais lañu ñu bañ bu ñuy wax wala bu ñuy def wala bu ñuy def dara ñu ñuy indi ñii pul lañu wala ñii nii nangam lañu loolu day yàq réew loolu day day joxe réew gannaaw ñun lu ñu bëgg ñin ñi nga xam ne ay pul lañu ñu jàppee ñu comme olof yi olof yi ci ñun la ñu jógee ñun ci olof yi la ñu jógee ñun ñëpp benn lañu Sénégal doomi Sénégal lañu ñu war a wax waxu waruñu wax ne di di tudd ay xeet loolu day suufee réew Ahmed mi dafa nekk fii ci Thiès ànd jàmm ak mbokkam yépp te baax ci mbokkam yu nekk ci ci biir Thiès ak yu nekk ci àll bi Ahmed mii mbaabuur la li ñuy wax mbaabuur mooy ki boot ñëpp defa boot ñëpp boot olof yi boot tukulóor yi boot ñëpp boot sénégalais yi yëpp daal laa bëgg a wax wax dëgg yàlla mosuma ko gis ak bi ma ko gisee ak léegi maa ngi koy ma sama rakk la maa ngi koy commencé xam bi muy raam ba fu mu toll na nii mosuma gis muy dugg ci njuuj njaaj bon nag lii xam naa ne benn njuuj njaaj amul ci biir bu amoon ci biir Ameth du ci dugg